projet bi bu kenn jum lu mu taxaw naan ay du ma wuy ji kenn forcé ko mu wuy ji wax dëgg yàlla waaw ah, projet boo xam ne cassation la bu la neexee nga ñëw bu la neexee doo ñëw. bëggoon lool ping pong wante man kenn du ma ping pong man damay ping pong mais duñ ma ping pong. Sénégal <laughs> ay eh, Barthélemy Dias génn na wax na li nga xamante ne war na ko wax wala war ko wax wax na en tout cas Barthélemy Dias nii. képp koo xamante ni jàpp na ni procès bi pour moom la yaa ngi jóg buñ jéggee ci ay waxam lii la wax léegi nag li nga xamante ni moo leer mooy Barthélémy Dias dafa ni euh, procès bi pour anéantir wala pour neenal candidature Khalifa Sall la lu am solo lay wax te dama ci dégg ni ah Barthélémy Dias mi day wax nañu indirectement que Khalifa Sall parrainage député moom lay wër te dem na ba moom ci boppam bokk na ci yi nga xam ni ñoo parrainé euh, Khalifa Sall léegi nag am beneen affaire muy leeral lépp ni moom mairie de Dakar du fa bouger moom leer na ni mairie de Dakar moom dafay toog du fa jóge parce que xam na ni décision nu mu munti demee parce que c'est pas criminel c'est délit la ko gars di toppee et cetera di ko mënuñu mënuñu mënuñu dindi mandat député léegi mandat maire yoo di ko nag li nga xamante ni mën na dañ mooy député te député boobu bu dañee dañuy ñàkkal Khalifa Sall benn parrain te balaa ñuy ubbiwaat ay séance pour mën a dem assemblée pour kenn di remplacer euh, Barthélemy day fekk affaire bi jàll na jeex na kenn dootu ko mën a remplacer di ku affaire bi day tëj mu jeex léegi Khalifa Sall treize députés rek lay des ci assemblée mooy le minimum syndical bi nga xamante ni moom la gars yi demandé di bu benn fakkastalu bu ndaw amee phénomène naturel am benn député bu si am gàkk-gàkk si ñooñu Khalifa Sall du mun a nekk candidat parce que parrainage am du mat léegi nag moom mu am beneen affaire ma gis ci toile bi ñu bëri def vidéo sama xarit yoro sax gis naa ko mu def vidéo Barthélemy Dias dafa war a Ousmane Sonko Barthélemy Dias ci ping-pongam bii mu wax nii ci la yàgg nekk ci ci la Ousmane Sonko àndee ak Barthélemy Barthélemy Diaz ànd ak Ousmane Sonko di ping pong Ousmane Sonko di nangu acte yi muy def continuer ci loolu ci ba ci lépp loo xamante ni mën na am bu ki amee procès keneen ki ñëw bu keneen ki amee procès keneen ki ñëw loolu il faut wax ko Barthélemy Diaz ba mu nekkee ci xeex bi ci ping pong googu ping pong gu sincère la doon joué ko Ousmane Sonko parce que moom ping pong ci la mës a ne te na leen ko ni lépp ba mu nekkee xale dafa bëggoon ping pong te moom day ping pong te kenn du ko ping pong xëy na dafa jàpp ne kenn du ko ping pong peut-être sax Ousmane Sonko moo ko doon ping pong moom ping pong mu ko woon mais moom dafa jàpp ni moom moo doon ping pong léegi nag ku ping pong ba balu ping pong bi ne dellu sa kanam da xam ni balu ping pong bi nee na dellu sa kanam nga continuer sa ping pong wala nga bàyyi ping pong rek te niñ ko gisee nii du koy bàyyi ping pong waaw léegi nag moom ping pong kat bu mag bi te da koy boole di ping pong ak jaay doole maanaam yor arme ni la bu ma dóoree bal bi na nga fexe ba mu dellu ci ci mooy Macky te mooy pimpunkal bu mag waaye ko moom ñu xool lu muy joxe kele door de nee na moom Macky du bàyyi waaye dëgg yàlla Macky du bàyyi de waaye wax dëgg yàlla moom Barthélemy Dias ay daawoor Ousmane Sonko moom caaxaan kepp la parce que Barthélemy lépp loo xamante ni moom yàgg na ko def ci loolu la ne maanaam caaxaan ñëw gis dëgg xeex ak dëgg pour teg li nga xamante ni moom la bëgg te def na ko ci Abdoulaye Wade ak candidature bu Abdoulaye Wade bi passé ni Abdoulaye Wade amul dëgg warul am troisième mandat dem ba mu yàgg ni Abdoulaye Wade bañ koy xeex pour mu jóge fi dañoo doyaloon dong ci moom mais xam nañ ne Abdoulaye Wade amoon dëgg <laughs> lii tamit leneen loo xamante ni nit ñi war nañ ko wax. jërë ngeen jëf sama gars yi ku mel noonu ngeen ànd ak moom démb tey ngeen naan ay que justice soit faite <laughs> te ànd ak ne ci Sénégal moom que justice soit faite mais procès bi bu kenn juum lu mu taxaw naan ay du ma wuy ji kenn forcé ko mu wuy ji wax dëgg yàlla waaw procès boo xam ne cassation la bu la neexee nga ñëw bu la neexee doo ñëw voilà say sa avocat mooy dem toog gars yi bi bu demul dinañ ko juger bu demee aussi dinañ ko juger de toute façon dañuy wax rek ba xam loi wa droit wax nañ ko wala waxuñ droit waaw ah, buñ confirmer affaire bi day ñàkk poste député buñ ko ñàkkee confirmer mu garder poste député mais mairie bi moom du loo xamante ni wax dëgg yàlla son kii na nekk na enjeu wax dëgg yàlla ndax da koy garder ngeen def